alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama ala majmaci shu'unihi wa xaqiqati kunhi sirrihi sayyidina muhammadin bahjatil kawni wa diyaa'ihi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim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 wa rahmatullahi wa barakaatu di del ci kartanal yàlla fas yéene ànd ak yéen ci seen waxtaan wi ñuy tuddee xadiisu sabaax di ndokkeel mbokki jullit yi fu ñu mun di nekk ci àdduna bi di ko topp ña koy topp nekk ca Guinée ñii di ko topp nekk ca Grèce ñii nekk ci Italie ñi nekk Amérique ñi nekk Asie ñooñu ñëpp ñu ngi leen di nuyu di nuyu tamit soxna yu tedd ya teel yeewu nekk ca dàmbaay jën yaag car rapide yaag njaga njaay ya bëgg lépp lu damm ci seen jëkkër ji ñu mën koo jàng ca dépense ak ca courant baag ca ndox ma di ca ndokkeel ñi nga xam ne tamit dañoo fanaanoo garde di wéttalikoo rajo télévision bu wal fajri nit ñay nelaw ñiy garde ñay nelaw bay garde waale seen bagaas ya di liggéey bu métti ñooñu tamit yal na yàlla xettali leen bañ leen di garde ñoom ci seen bopp waaye tamit euh, suñu mbokki pël ya ndeysaanam nekk ca caawa ga bëgg lool wal fajri ba koo ci gis ñetti wéttal rekk la am mooy wéttalu xetam wa ak gàttam ya ak rajowal faj ri ñooñu ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñaanal leen lañuy ñuy sàmmi yàlla nañ ko jofal te yàlla defal leen ca sekki ak barke musal leen ci sàcc yi xaaral leen seen alal yi musal leen tamit ci ndey sàcc yi di lëkkalikoog sàcc yi nga xam ne tey léeg-léeg ñu sàcc lañu ñu ne laa soo ma joxee nangam ma mu feeñ de nga bëgg caa neexle ci sa keesu saret gi mbaa ci sa saret ci sa fas wi mbaa ci sa nag yi lu jege genn wàllu wala lu hëpp genn wàllu loola la muy jar xam nga koo ko daanaka sàcc la rek waaye tabaarakallaahu loola matukaay bu bu mu war a matu war nañ ko cee taxawee bu baax a baax a baax su ko defee nag tey damay ñëw ak yow ci tabaski gannaaw bi ma jeexaleek yow démb ci wàllu aj ndax ñetti gàtt yama la waxoon démb ki nekk màkka aj moo koy rendi ka war a def fidyatu ka war a joxe hadiyu ba ka war a def tamit jasaa u saydi ba waaye nag ki nekk fii moom ajiwul lañu sunnaal ci moom na tabaski comme ni ñu sunnaalee ci moom yow mi ajiwut buñ ne tey la taxawaayu arafa nga xoor yool bu rëy ma ca koor googa yonent bi dale ko ci ka foo ka nekk foofa nag moom di aj moom du tabaski waaye kooka tamit di aj moom du xoor xoor ak xoor ak lislaam diine yërmande la dafa wax ne dafay wane ni rekk aj lu metti la boo naree boole caag woor danga sonn mu lay dàqal di la xoyofalal sa coono ba ne la sax julli yi nga war a julli fii ci Arafa tusubaar ja ak tàkkusaan ja wàññi leen te boole leen wàññil na la ñeenti rakkaa ya kenn ku ne ñaaram ya mu fanqal la tamit wàññil la koor ga ndax boo ko bëggee booleeg moom dana metti waaye yow mi nekk fii nag aji woo xooral yow mi nekk fii aji woo tabaskil tabaski lañu yàlla sant waaye yàlla santul ñu tëbis bi ñu bari nag tëbaskeetuñ waaye dañuy tëbis bi waaye boo tëxee bis bi ñetti téeméeri fan ak juróom benn fukk ya ak juróom yi ci kanam danañ la të 365 suur ya soo demee ba të bi yeneen bis yooya dañ la mujj të tabaski bi jot na lu ne nga dugg ca loo mënut bëgg a dugal nit ñi ci lu ñu mënut ba bu tabaska ba paasee rek dana feeñ ci ni ngay dundee loola kenn kenn santul la ko tabaski lañ la waaye wuñ la bi tabaski nag maanaam ki nga xam ne moom la war imaamu Malik nee na mooy koo xam ne njëg gi ren ba déwén du ca am soxla kooku la tabaski war am na tey daal njëg gi yëg na ne fii ba ren ba déwén fayut ci luyaas jëndul ci ordonnance bu muy fajoo wala mu cay faj njabootam wékkul ci tamit ab dépense bu mu cay war a dépassé ci boppam wala ci soxnaam ku mel noona lañ wax ne tabaski gi war na ko su fekkee na nag mënuloo loola nga jànkuwante bala ngaa tabaski ji lu ne nga dugg ca ah kay warul la waaye wér na la ca loola nag ndax yaa ko togg sa bopp kon kii la Malick wax ne moom la tabaski bi war tabaski moomu nag sunna la bu ñu feddali ci ku ko man ku mel noona sunna bu ñu feddali la ci yow dafa bokk ci juróomi sunna yi nga xam ne yonent bi dund na ba génn àdduna musut koo bàyyi mooy tabaski ak julleeg ak julli safa ak witar ak jullig muurug jant ak jullig baaw naan juróomi sunna yi ñoo ëpp doole ci mbooleem sunna yi ñu leen di tuddee sunnanul mu akkadatu su boobaa nag kon boo ko manee rek nii la tabaski taxawee ci sa kaw su fekkee mënoo ko nag yënga ne amoo njëg gi jamono ji dal na ci sa kaw ah su boobaa nag nga ñàkk tabaski dara néew ci amoo ci benn bakkaar jëlal sa bopp rek nga dugal ko ci xaru sayduna muhammad ma sallallahu alayhi wa nga xam ne mbooleem ulamaawu sunna yi nettali nañ ne bi ñu sunnaalee ci moom tabaski mu ngi tolloog atam juróom-benneel ca gàddaay ga ñenn ña ne atam kon ñaareel ca gàddaay ga bim gàddaay ba ca déwén sa rek ci lañ farataalee tabaski ci lañ sunnaal tabaski ci moom ak xeetam bi yonentu bi yëg ne sama xeet bi yëpp mënuñoo xam tabaski mu dem indi ñaari xar ay kuy yu weex am na ci ay ñuul ñuul lu mel ni seen tànk yaag la cay lu ñuul léegi nag wax sayyidatuna Aïcha ne ko andil ma paaka bi mu indi mu ne ko demal nammal ma ko ca doj wale mu nàmm ko ba pare ñi tëral ko yonent bi rendi ñaari xar yi boppam ne bi ma njëkk a rendi mooy sama tabaski mi maneen ma ca tegu yéene naat yi mbooleem sama xeet wi ku cay jullit ko amul tabaski rek dugal naa la ci sama tabaski mi kon boo xamut nga jël sa bopp dugal ko ci xaram tabaskeem yonent moo gën dal xel moom yàlla nangu na ko te yow sa tabaski mi xamoo yàlla dana ko nangoom déet moo tax kon da ca jànkuwante yu ko yu ko matut ko loola mooy sunna ba ci koo xam na nii man na ko soo ko mënoon na bëgg a dugg ci tëbis bi tëbis bi moo lay yóbboo fi nga nekk da nga fay luye tabaski bi ñëw tolloog weer wi dee nga jël la nga waroon a fayee luyaas ba jëndeem koom tabaski di dawloo boroom kër ga ba mu ne la sama caabi yi ku la ko teg yaa ko teg sa bopp da nga doon jéem a tëb bi waaye bis yi ca kanamam të nañ la fu mel nii foo foo dëkk tëna la wala yaa ngi nii tabaski baa ngi ñëw sa man-man demeewu ko xamoo loo gënde tabaski nga dem rangu marchandise am jàmbur du fu ne nga dugg fa ràngu fa ay marchandise dem jaayi ko jël loola dem jëndee comme tabaski commencé nag dawloo boromam da nga dem jamono gi dafa xat boo jubee sa tur dana tasaaroo ba ñëpp xam ko boo jubadee tamit day xëy tëj daj àdduna bi yëpp ndax ki nga nax a koy wax keneen koo ko wax ko keneen ba mujj daj àdduna bi mujj nag àdduna bi xat ci yow ànd ak la muy yaatu su ko defee tamit nag ngay dawloo waaja da nga mujj ba dootoo amati foo liggéey foo fooy liggéeyooti yaa doon jéem a tëbbis bi tey nag yow tey fooy liggéeyee tën na la demeet wala tabaski bi jot nga dugg ci luubal tiriyan fu ne nga dugg lii nga leb lii nga wax fa digga fa loo mënut diir ba passé na nga fay sa téléphone bi ku la woowati du la jot kenn mënutul laa am na ñoo xam ne bu weeru tabaski bi xas di teru dootoo leen jotati commencé nga sensé numéro yaa doon jéem a tëbbis bi waaye tey tamit ñibbisi gi tabaski bi jeex na bu yàgg waaye mënoo ñibbisi yaa ngi ca àll ba rek ca village ba mënatoo ñëwati ñëpp si ci dëkk bi tëna la waaye tamit bala loola bala loola yombee tamit ba nga xas ñëw euh, jot la xoola jot la tëna la fu mu ne nii kenn mënatu laa jotati kon dama bëgg a wax ne tabaski la yàlla sant ci ko man waaye yàlla toggul ñu tabis bi te nag ku tabis bi rek yëpp dana ci dana la ca fekk tabaski nag ba tey ni mu walaa balee woon li ma la waxoon démb ci yonantu yàlla ibrahima ak sayduna ismaila ak saydatuna hajara noonu la valaa balee tamit tabaarakallaahu ci tabaski bii nii ndax kuy tabaski sa xel war naa daj yonantu yàlla ibrahima waaye yow góor gay tabaski fele fexeel ba mel ni ibrahima bul rendi sa xaram tabaski mii te fekk jubóowoog sa borom war ngaa góor góor lu ba jubóog sa borom jubóogu day ni lu la sa borom sant nga def ca la nga man lam la tere kenn du la ki gis ba mel ni Seyduna Ibrahima waaye soo jubóowut ak yàlla tey rendi xar moo xam ne mën naa moo la gën a jubóog yàlla euh, neel maa ngi rendi xar rek waaye bul wax ne maa ngi tabaski yow xale bi tamit amoo tabaski sa baayam ren dem tabaskiyam nga duggaale ca bala ngay lakkalu fu ne nga dugg naan sama tabaskiyam papa meem moom laay sangam moom laay xeew ci seen na fekk bala nga ko ko tuddee nga jubóog sa baay jubóo gu day ni Ismaayila mii baayam na ma reen di mu ne nangu naa yow soxna sa timit bala nga fay nekk tiitaroon damay tabaskiyam sama tabaskeem jëkkër jéem suñ xaram ren mi ëpp mu daaw meek jaay ma ay paakaak jaay ma lakkalu beek da nga teel a ñëw ren dil ma feesal maag nangam ak nangam na fekk nga juboog sa borom kër de waaye boo jubóowut ak sa borom kër bu la kenn gis ca lakk ya waaye di lakkalu te fekk yow sa borom kër foo toll yaa ngi koy lakkal su boobaa tamit wax dëgg yàlla bokkoo ca tabaski ba booy lakkalu na fekk bul lakkal sa borom kër kon yooyu yëpp dafa jara bàyyi xel ba tax na kuy tabaski sa xel war naa daj ñett ñu tedd ñii nga fexe tamit ba nekk ci kenn ci ñett ñu tedd ñii kenn tabaski màngoog la ca gën boo ko mënee mooy xar ca ñetti qualité ya boo ko amul wutal bëy soo ko amul wutal nag soo ko amul nga door a wut gëléem xam naa du ma wax sax soo ko amul xanaa boo bëggee lu gën a rëy rek ci yooyu rek lañ war a tabaski waaye lu mel ni ganaar ak ay pittax kenn du ca tabaski loolu la fuqaaw yi ñeenti mazhab yëpp loolu lañ gëm waaye yenn ci mazahibu rafida yi nga xam ne seen ngir ya dañ koo fëgg ñoom nee nañ mën nañoo tabaski pittax mën nañoo tabaski tamit tabaarakallaahu maanaam yu mel noona ñu tegtaloo waxi bilaal jam waxoon waaja ne ko laa ubaali in daxayta bi dakki bi bi bi dakkiikin man duma faale su fekkee da ngaa tabaskiyee am ganaar te loolu Saïd ibnu Mansour moo génnee wax jooja kon maanaam tabaskiyee ngoog ci yooyu lañ koy war a def tabaski mii nag liñ bëgg bu weer wi teroo rek yow mii yàlla wërsëgal la nga amaam tabaski muy weeru tabaski wi sa kawar bu ko watati bu ko daggati say we loolu lépp dafay wàññi xiiw su ko defee soo ko manee fukki fani tabaski bi euh, fukki fan yëpp juróom-ñeent yu njëkk ya nga xoor ko bis la boo xam ne weer la boo xam ne ci lañ yëkkati jëf yi buñ ko yëkkati nag fekk nga xoor dafay nekk xiiw rëy moo tax weer yu ñuy xoor weer yi ci ëpp ngëneel na ci juróom-ñeenti fan tabaski mooy juróom fan yu njëkk yi nga xoor ko lu bëree bëri ngëneel yu rëy rëy la bul watati sa kawar gi bul dagg tamit say we euh, sa tabaski moom tamit boo ko xasee jënd bu ca wàññi ci dara ca kawar ga bàyyi ko noona tabaski mi tamit nu mu gën a rëyee su fekkee yàlla rek a tax moo gën euh, ndax alquran dafa ne woon tabaski miñ rayal ismaila mu rëy la woon wa faddaynaahu bi dibihin azimin kon am bi azimin nga xam ne kon bu màgg màgg la bu rëy rëy la kon tamit booy mën a wutal xar mu rëy rëy te yàlla rek a tax bu ca tiisaaru nag utam xar wala as xar sax la nga bëgg a tiitaro di wut ceen te fekk buum gu ndaw mën na koo xeew wala nga koy jéem a njatanka wala nga koy jéem a fuddan di ko bàyyi ci mbedd mi ngir puukarewu kenn ku nekk naa naa ah, diw bàyyi diw dee am na tabaski te xam koy xar ma gis mu romb këram ba muy tuut làmmeñu nit ñi sax balaa ñëw xar ma dee wala ñu sàcc ko nga bëgg a jaamu jaam problème te yooyu yëpp tiitaru rek matu ko su ko defee jaamu yàlla kenn du ca tiitaru eh, def ko rek te tax. bu sa doole yeggul ci xar ma tamit bul ruus aw bëy waaye yu ci bëri tamit ci tabaski yi soxna ya ñoo cay sonal boroom kër ya ak rawatina nag boo nekkee borom kër goo xam ne tabaarakallaahu rajulu duyoos nga dangay toog sa kër ñi def lu bon doo ca mën a wax dara sa jabar jee la xilif te loolu bari lool xar moo indi mu ne xar sii nag xeebal la ko te loolu sa doole toll wala xamoo xar waa ñi ma woo yóbbu bëy wala nga yor yi soxna kenn ku nga ne koy xeewal am xar ba yow an sa xar mi xaa maanaam xaram aawa baa ngi ñaareel baa ngi ñetteel baa ngi an sa xar mi yow su boobaa yooyu yëpp tamit lislaam santut la ko soo amee doole kenn ku ne xar baax na sa xar mi jiitu ci soo amul doole rendil menn xar nga yéene leen ci ñoom ñëpp sa baay ak sa yaay ak sa soxna yeeg ñëpp duggaale ci biir xar ma kon yooyu yëpp jar na bàyyi xel ku fi sonn boo koo dégg mu ne xaw naa dee rek dafa bàyyi sunna man kay tabaski gii xaw naa cee dee boo ko déggee rek ah, dafa defut sunna sunna sonalul kenn wala man kay sama ngénte lii xaw naa caa dee man kay boo dootuma jagati eh, dafa defut ngéntewut da yàlla taxut su boobaa yooyu yëpp réer ga rek a tax ak wanewu waaye sunna dafay ñëw di teggi nit ki coono waaye sunna moom du sonal kenn bul am complexe bul am ak rëy ci sa dëkkandoor bul xam ak tiitaru ci say jabar yi di def loo xamante mënoo ko ak sa doom yi wax leen li nekk ci yow nga man amoo bëy amoo dara demal nga jënd yàpp rek nga nga nga màggal bis bi wala nga wuti ganaar ñi di ko nga def ci la nga cay def xéewlu ci waaye bu ko tuddee tabaski nga jublu ci bég ci bégal ci sa sa bopp ak sa njaboot gi waaye loo mënul nag bëgg caa def loo xam ne mënoo ko bis bi jéem a tëb bis bi bis bi passé tëla yeneen bis yi ci kanam yëpp tëla nga ñàkk sa liggéeyuwaay ñàkk sensé nekk am sensé interdit ci mbedd yi fay sa téléphone ku la woo la jot nekk ca dëkk ba rek tabaski bi passé na bu yàgg nga toog fa yooyu yëpp kenn toggut la ko kon yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel euh, tabaski nag tamit kenn du ko cotiser euh, damaa amoon doole aw ma joxe dix mille ma joxe vingt mille ñu bokk ko tabaski déedéet daganut defal ko sa baay rek cotiser ko ko dara néew ci sa baay am nay doom te yow mënoo jëndam xar yow doom ji nga ne kon kan ñun doom yi na kenn ku ne am lu am ñu jox ko suñu baay. nga joxe ñaari junne ma joxe juróomi junne ñu dem jox ko góor gi góor gi dem jëndam tabaskiyam loolu dara newu ca waaye nag cotisé na naa def sama bàyyi def ñu bokk ko jëndam comme xar pour tabaskiyee ko loola moo daganut waaye nag euh, bàyyi ji amul doole doom ya tamit kenn ku ne amul doole joo mën a jëndee kenn ku ne participer ci xarampa bi loola moom dara newu ca taawun la buntab dimbalante la te alquran ne na wa taawanu alal birri wa taqwa waaye nag bokk nag ne nañu cotiser jëndam xar kooku moom fuqaaw yëpp d'accord wuñ ci d'accord nañ ne maanaam daganut tabaski moomu tamit boo demee ba yàlla may na la nga am ko mel na nam war a mel nga am ko ci bis bu njëkk ba nga rendi ko ci bis bu njëkk ba ak nañ la occasion boo ko amul jëlul rëylu bàyyil ba ci suba ga rek nga rendi soo ko amul xaaral ba gannaaw suba ga nga rendi yépp baax na waaye yow xar mu bis bu njëkk bi xamoo tabaski fu ne nga dugg yamatu ko xaaral ba suba boo ko amul bàyyil ba gannaaw suba feeg jant ba soxagul ca bisab ñetteel ba rek foofi rendee sa tabaski moomu wér na boo demee ba koy rendi boo ko mënee li gën nga nga méngoo ko ci sa loxo bopp bi soo ko mënul ndax ñu bëri am nañ ne ba mënuñoo rendi ñenn ngi sax faruñ ko man utal ko la rendil te te nekk ab jullit nga jël sa loxob ndeyjoor bi teg ko ci mbaggam ma muy rendee ne bisimilah moom tamit mu ne bisimilah commencé rendi ma nga yéene su boobaa day mel ni yaa ko rendi ndax dam yaa ngi ko cay dimbale teg gi nga ko teg ci loxoom bi dafa mel ni yaay rendi moo tax kon loolu lañu bëgg yàpp wa bul ca jaay dara bul ca wattee dara donte der balaak yàpp waag yëpp def ko ñetti xaaj lii lekkal ak sa njaboot yii joxal say dëkkandoor yii seetal fuqaraaw yeeg masaakin yi nga jox leen ko waaye feesal ma ma jox la der beek feesal ma ma jox la ci kilo yooyu yëpp daganut ku la feesal nag sa xol sedd nga yëkkati ko ne ko lii jëlal yóbbu sa kër te yàlla rek tax dara nekkut ca boo amee mënta ñàkk fekkee waa ji day fees di fayeeku waxante leen ci xaalis nga yëkkati 1000 francs wala 2000 wala 3000 jox ko ko ci xaalis waaye bul ko ko fayee ci yàpp tabaski ba mbaa ca derbaak ca yeneen yi nga xam ne ni aju na ca waaye yàpp tabaski tamit nag bu ci fàtte say dëkkandoor Abaa Zarin al yi la yonent bi waxoon ne ko boo toggatee lu am ñeex bu yàpp wa daju na ñeex ma bëri nga yàqal ko ca loolu lañ bëgg def la euh, Souleymane defoon ba muy wootee nganam gu rëy googa ne yow yàlla ma laa bëgg a wuutu gi sa mbindéef fi ñetti fan ku lekk maa la leyal yàlla ne ko bari na xàttanoo ko di mu ne kon ñaari fan mu ne ko xàttanoo ko mu ne benn fan mu ne ko xàttanoo ko di mu ne ko kon benn lekk Ibrahima yonentu yàlla Souleymane la ma xamoon lépp mu jëndee ko ay ñam def téléthon nag lu fi yàgg la nekk lu waaye am na ma dimbale kenn ku nekk la nga am nga dimbale ko ki jinne yàq njanaaw yàq ba benn Moussa njubbu lii mooy moom laal Quran tuddee suratu hudhud mu dem dem dem lu yàgg yàgg yàgg amul lu dul benn laafu njéeréer mu fekk Suleymaan mi ngi ko defee ca tefesu géej gi rek mu jël laafu njéeréer wa sànni ko ci géej gi ne ko maa la ko dimbale ci sa téléthon bi bu yàpp yu doyul ñeex mi doy na shaayir ba ne atat Suleymaana yawma rawi hudhudatun saaqat jaraadan saaqat ila jaraad kaada fi fiha wa anshadat bi lisaani alxaali qailatan ina al hadaya ala miqdaari muhdiha ne ko hadiya nekkul ci darajaay ka ñuy jox kon yonent bi kenn du ko mën a jox hadiya surafaaw kenn du leen mën a jox hadiya waaye hadiya nga nekk ca darajaay kay joxe man manam lii laa xam laa fu njéeréel laa xam kon bu ko rëylu la nga xam bu ko xeeb buñ la ko xeebal timit da nga amee soxna su baax soo xam ne loo ko jox doy na ko ba mel na yonente ba mel ni sayyidatuna Hajara ci Ibrahima kooka moo saña lakk neen maa ngi lakk sama yàpp tabaskeem jëkkër ji ak nangam waaye foo nekk jigéen koo xam ne foo toll yaa ngi lakkal sa jëkkër ji di ko tàccoo ka nangam ku ku mel noonu waroo lakk ci lakk ci sa lakkalug jëkkër ji kon yooyu ñu bàyyi ci xel yàpp woo bu ca jaay dara bu ca wattee dara lekkal saraxeel dimbaleel te fekk yàlla rek a tax distance ba sori na ñetti fan la boo ca am fekk ñetteelu fan ba soo soogul rek sañ nga caa sañ nga caa tabaski ji waaye deel xaar ba jant bi fenk nag bul ko def guddi moo ko xaddi ñoo xam bëgguñ ko ko rendi guddi soo ko rendee guddi maanaam du mën a doy euh, booy rendi tabaski tamit ay tabaski la maa ngi lay ñaan bul ran bul rancelee xar yi di nàmm paaka bi seen kanam dee dafa metti ba ñu koy melal ñu naan deegu xonq gi mooy deegu ñaaw rek dee manta xonq waaye de ji sotteeku rek fu dee amee ñaareel deret sotteeku na ñaareel moo tax ñu koy tuddee xonq su ko defee kon lu mel noonu nag dee dafa métti ngay nàmm paaka bi mu lay gis nga jël benn tëral deret ji sotteeku ñaareel ba di la gis ak ñetteel ba danga leen war a làq booy reen di moromam bu ko moromam ma gis paaka bi amee deret sax bu ko moromam mi gis loola lépp ci. ci lislaam la loolu lépp tamit ci yolombal la bis bi bis bu tedd la bëccëg ba foor na guddi ga foor na bokk na ci bis yi nga xam ne bis ba foor na bëccëg ba foor na comme ni laytul xadri mel bëccëg ba foor guddi ga foor bëccëg ba koor la guddi ga guddi laytul xadri la yow it tamit noonu la yowmul iidi noonu la mel laylatul iidi tamit noonu la mel bu sa loxo jotee sa gannaaw bégalal sa njaboot xotti leen ay yére yu bees nga nga jiitu ca nag ndax dañoo bëgg bis ba nga ut lu bees donte la ñuul na buy jumaa na weex donte la màgget na su ko defee tamit nag yaatalal sa njaboot ca togg ya solal nga sañse kàbbaaral boo xëyee bul lekk demal nga waaxu jëm ca julleekaay ba ak kabaar ya boo ñëwee nekk ca ba ilimaan ñëw nga noppi su ko defee su fekkee ci jàkka ngeen ko defee mbaa juma defal tahiyatul masjid nga nuyu jàkka ja door a toog bu ngeen koy defee ci xàll nag ñëwal rek nga toog jarul julli ñaari rakkaa su ko defee jàkk nekkul fa bañ koy nuyu su ko defee léegi ilimaan gi ñëw na xutba na julli na leen ñaar rakkaa ya door a xutba xaar leen bu leen yàkkamti bàyyi leen ba imaam reen di tabaski mi ngeen door di reen di boo ko njëkkee reen di nag yow ci sa bopp amuloo tabaski yow mi may déglu nekk ci dëkk màngaan yi nga xam ne amuleen ilimaan seetal dëkk bi leen gën a jege rek ngeen nattale ne seen ilimaan ja de julli nañ ba rendi nañ léegi moom jamono ji benn xibaar nëbbootut du ñàkk dëkk boobu nga xam fa benn niman numérom nit nga xoo ko naka mu julli ngeen ah kay rendi nañ kay imaam rendi na waaw nga door di rendi yow mi nga xam ne da nekk foo xam ne amuloo ilimaan jula jiite noonu ngeen koy doxalee booy ñibbi nag jaaraatal weneen yoon wuxuute wi nga jaaroon yoon wa wa seede la wi nga jaaroon seede la politique la woon bu njëkk ba rek wane ne jullit ñi bëri nañ ñii jaar nañ fii ñii jaar nañ fële fekki jaaroon fi moo jaaraat fële rek waaye nag loola dàqu na ba tey xàtte ba rek des fa kon tabaski ngoog ak fooraay gi lu ca waay mën na ko def jaamoo ko yàlla bu mu ko def mukk nag euh, di ca puukareewu bu mu ko def mukk tamit di ca waneewu bul ko def te fekk tamit mënuloo ko soo tabaskee tamit tabaski bi bu paasee mu indil la ay problème yoo xam ne yu bëree bëree bëree bëri la gannaaw tabaski ba fu ne nga dugg fa lu ne nga dugg ca te loolu yëpp maanaam kenn toggut la ko boo demee bay tabaski tamit maa lay ñaan yow boroom kër gi nanga nga mela fexe bay yore jikkooy yonentu yàlla Ibrahim yow soxna si nga yore jikkooy saydatuna Hajara yow doom ji nga fexe ba yore jikkooy yonentu yàlla Ismaila ku mel nii yaay ki tabaski ku melul nii na ne yaa ngay tabaski wala ngay xewlu lu ñu tabaskiyee yow yàpp rek nga am waaye maanaam amuloo tabaski ma yooyu yëpp nañ ci bàyyi xel kon tabaskiyee ngoog yàlla na yàlla yóbbuñu ca te yàlla jàppandal xar yi ci borom kër yi yàlla jàppandal comme tabaski dafa bokk ci événement yi gën a mag bu jotee ñu bëri dañuy déplacé wu ba nga yëg ne ndakaaru ak dëkki région yu bëri kenn dëkkut fa ñooñu ñëpp yàlla sàmm leen ñu dem ci jàmm bu ñu yeggee seen waajur ya kontaan ñu del si waat ci jàmm bu ci kenn am benn problème lépp yomb ni ko mag ñi daan ñaanee yàlla yombal xar ya te yombal xartum ya xartum yi nag gaa yi soxlaatuñ ko léegi xanaa maanaam gëni laay rek moom la gaa yi gën a soxla léegi ak borode yi yàlla na yàlla yombal yooyu yëpp ak marakis ak mbaxana ya ak kaala ya muy ànd ak yëpp yàlla jéggal ñu te suñ xujaat yi yàlla yóbbu leen ci jàmm ñi ñibbisi ci jàmm ànd ak salaamatu ak ganimatu yàlla boole may leen xajjan mabruur wa saayan mashkuur wa zanban maxfuuran yàlla defal tamit ñi aji wut te bëgg a aji yàlla jàpp na leen yoon yi ñi aji woon te bëgg demaat yàlla jàpp na leen yoon yi lépp la ca war a am ci istitaatu bañ mën koo def yàlla defal leen ko ñi nga xam ne tamit aji wuñ tabaski war leen tabaarakallaahu ñu taxaw ci timit yàlla dimbali leen ci jàppandal leen ko ba mu yomb lool ndax léeg-léeg timit dana am koo xam ne dangay yëg ne sax tabaski wàcc na ko waaye njaboot rek la xamul la muy def ak ndeysaan dëkkandoor yam nekk ak ak mbokk yaak nangam lu ne mu dugg ca sëriñ Abdou Lahad Mbàkke moo ci mos a njàngale njàngale mu rëy rëy rëy rëy euh, tabaski dafa jor rek mbooloo mu bëri def délégation dem seeti ko euh, mu recevoir leen nag ba pare ne leen waaw mbaa la ñu ne ko ñun ñi ñëpp de dafa am kilifa gu baax ku ñuy wax sëñ fàllu mbàkke moo ñu daan jox xarit tabaski te tabaski mi jot na daal wax dëgg yàlla soxla nañ ñu bëggoon nga dimbali ki tabaski sëñ abdulahat ne leen waaw ndax tabaski bi ngeen ni la dox di wër pour laaj bëgg ku leen ci jox am ngeen ko ñu ne ko ñun laay amuñ dara mbàkke mu ne ndax ndax yaakaar ngeen ko fenn ñu ne ko laay mbàkke yaakaaruñ ko mu ne même bu leen nit lebaloon sax yaakaaru leen fu ngeen ko mën a fayee pour maanaam bu paasee ñu ne ko wallaahi mbàkke yaakaaruñ ko mu ne xëy wàcc na leen eh, bu ko defee nag ku yàlla wàccee boo bëggee yéeg dangay ngay am problème eh, fekk na ñoom lañ doon déglu ak nam leen tontoo wax dëgg yàlla eh, wuutee na lool waaye muy njàngale mu rëy moo xam ne lam leen ci jàngal mooy ña yàlla wàccee ñëpp bu ñu wàccee woon seen bopp duñu am benn problème su ko defee waaye bu la yàlla wàccee nga bëgg a da nga sonn sonal nit ñi ñoo xam ne tey tabaski boo xasee jot dana bari ñu fay seen téléphone yi ñii ay sëriñ lañu ñenn ñi ay boromi xalal lañ ñenn ñi sax dañ ca dem ba génn seen kër ya boo ñëwee di leen seet doo leen gis waaw waa ji nekk këram di la laaj tabaski yow nga bëgg a génn sa kër gi lu ko jar ñenn ñi tamit da ca digge loo xam ne mënuñu ko loolu jaruñ ko topp yàlla jarut kàcci soo mënee dimbale nit ki dimbale ko te yàlla tax soo ko mënul nga wax ko dëgg. ne nag bëgg naa laa dimbalee waaye mënuma ko mu jeex waaye di ko digg mu lay yaakaar di xooma heure sàngam mu yaakaar lépp mu ko ci yow ndekee yaakaaroo yàkkit loolu tamit baaxut defal la sëñ Abdou Lahad waxoon te mu nekk darsu boo xam ne bu mag a mag a la ah, sëriñ Fallou Mbàkke xam naa ci laay tëjee moom tamit ah, benn bis ndeysaanam ah, tabaski dafa jot rek am ñu ñëw ci moom di ko diis lu mbiram tabaski mu ne waaw toog leen rek bu ngeen toogee bu xar yi ñëwee rek ma jox leen ci xar yu fi juux si daal danaa ko jox ñu fi juux si ñu toog tuuti ay xar ñëw mu ko bëkk néeg ba ne ko jox leen ci xar ya mu jox ñoo nga nag ñoo ña génn commencé ñaxtu ba sëñ bi dégg ko sëñ bi ne mbaa jàmm la ñu ne ko ñii de gis nañ fa ñu jox xar yi xar yi tulaa yu mag a mag a mag waaye ñoom xar yu ndaw yi fi juux si rek lañ ñu jox waaye xar yi yar yi daal joxuñu ci benn sëñ falu ne leen xar yi yar yi ñi ma yar laa koy jox xar yi fi juux si ma jox ko ñi fi juux si rek jël leen seeni xar yi ngeen dem kon nit ñi dañuy xaw a naqaree dimbale ah, kilifa gu baax dama doon waxtaan ak moom barki démb rek mu ne ma dafa am waa joo xam ne ndeysaanam dama yëkkati ñaari million ak genn wàll ne ko demal màkka dama la ko jox rek te yàlla tax bu la neexee demal nga màkka bu la neexee tabaxeel bu la neexee dundeexal man daal jox naa la ko te yàlla tax ñi teg ay fan mu ñëw di gaaralaat bi jox ko lu mu bàyyi ca kër ga ak lu mu war a def ab dépense ak nangam ak nangam xam nga yooyu tamit néewut néewut xel néewut nekkul xel dafa am loo xam ne bu la ko nit ki defee te dara waru ko ca da nga koo war a sant da koo war a gërëm te liggéey nit ñi tamit dañoo goreetu li ci ëpp koo defal ndimbal bu xasee jot ca ndimbal la dootul la woowati ne jot naa ca xalifa bu tedd ba Mawlaaya Xaaji Omar guru sax bu la ko mosee may dafay bëgg nga ne ko jot naa ci yóbbante bi ndax day tax confiance ne kam yónnee woon hegg ca moom. waaye léeg-léeg da maanaam boo la joxee dara te waxoo ko ne ko jot naa ca rek da nga yëg ne lii gënalu ko te ko ku ne xam na ko ci fu mu toll ci wàllu yàlla waaye nit ñi seen soxla la ñuy jaamu ci nit su loola xasee paase rek ñi sànniwaat waaje fale di xaaraat ba soxla sa jubluwaat ñi door di la téléphoné xam nga loolu tamit baaxu nit dafay gore nit ki bu la defalee loo xam ne mënoon dara warut ko ci woon da nga koo war a sant nga gërëm ko ñaanal ko yàlla su ko defee moom tamit. su ëllëgee bu amaatee dara xelam daj la kay def na ngir yàlla moom seetul ci sant nga ko seetal nga ci gërëm nga ko seetul ci woo nga ko ndax yàllaa tax muy def su boobaa yàlla moomu di ko def day tax moom moo koy fay waaye su ma koy wax rek maa ngi cay jublu nit ki da ngay fàkk buntu ndax boo ëllëgee nga mën caa dugg te jot ndimbal ba pare sant borom day waral boo ëllëgee tamit soo soxlawaatee yoon woow woowa tamit tabaarakallaahu dafay yomb bu baax a baax a baax a baax. kon yàlla na yàlla jàppandal lépp defal leen tawfiix defal ñu ko defal leen taysiir defal ñu ko defal leen naataangeeg barke defal ñu ko raxasaat xol yi ba nit ñi di nit génnee jikkoy rab yi génnee jikkoy soxor ak añaan génnee ngistal bëgg àdduna ak daraja ak li yàqal doomu adama lépp yal na yàlla boole musal mu ci lu ñu mën a xam yal nañ xam yàlla lu ñu mën a ñàkk yal nañu yàlla may boppam ci barkeb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh